maa ngi woo waa Benno Bokk Yaakaar ñu dégg bu baax message du président Macky Sall boo déggoo ci média yi nit ñi dañu nekk di ñu distraire matin midi soir balaa maa dee ñu yor micro rajo bi naan ñu waaw continuité la wala rupture lan mooy continuité lan mooy rupture ñun dañu am programme muy plan Sénégal émergent président bu ci ne 1960 ba ne li ñu laaj du li ñu laaj sa morom li ñu laaj président Senghor. est-ce que moom lañ président Abdou Diouf déedéet ndax jamono yi bokkul li ñu dénk président Senghor du loolu lañ dénk président Abdou Diouf li ñu dénk président Ablaye Wade du loolu lañ dénk président euh, Abdou Diouf li ñu dénk président Macky Sall ci jafe-jafe jamono ci solution yu warul du lii ñu dénk président Ablaye Wade mais président Amadou Ba bu ko yàlla Le problème yi muy jànkonteel du li Macky Sall di jànkonteel mm-hmm. kon nit ñi mënuñu taxaw di ñu tënk ci problème rupture ak continuité le président Macky Sall wax na leen ko wax ju leer nee na kiy falu li mu war a a du infrastructure ndaxte Sénégal infrastructure jombalatuñu li mu war a lijjanti du hôpitaux hôpitaux jombalatuñu du courant ndaxte courant jotaluñu mais mooy emploi des jeunes donc ñun bu ñu nangu nit ñi di jël suñu xel di ko yóbbu gauche ak droite problème bi du continuité du rupture problème bi l'étape étape yi des ci plan Sénégal émergent plan di ci plan Sénégal émergent moy fexé ñu gëna a suñu nous ñu industrialiser suñu bop ñu gëna am ay emploi diko gëna jox suñu ndaw suñu ndaw di Sénégal di gëna liggéey té pourtant de dëkk nous dem ci dëkk yi ñu dendal wala dëkk nous dem bitim réew wuñu loolu nak Nous la wolof di wax ñu sa doxinu fas ba nga sa fas sa fas say say bagage donc ñun wa Sénégal nañu sant yàlla ñun ñeewuñu réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu wër ndaxte suñu réew am na jàmm suñu réew am na dal suñu réew am na électricité suñu réew am na liggéey nañu gën a góorgóorlu